donc gis yi am boobu ba tey kilifa yi ci yëkkati ay kàddu boo xam ne a wax fu réew masaan toll it ñu wax caa ñoom jox leen taw jeexal yi ci wax. Sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mii nag nee na ci loolu rek lay wéy di dundal di dundal li ci aar ko ak yaatal ko te lépp mu ànd ko yóbbu Sëriñ Tuubaa yi ak dongaan bi ak bokkam bi te ay bokkam nag ñoo ñooñu lislaam ndax Sëriñ Tuubaa moo waxoon ko ne al mu'minuuna ixwatun wal mu'minaat lii axawaatun wa kul bi ihsaan Sëriñ Mouhamadou Alioune Bara nag nee na ñu ngi fas yéene fedd loolu nag fas ko yéene suuxat si jokkoo ak àndaloo ak jàppalante ak ak ak ñëpp rawatina ak xeetu jigéen ñi ñi nga xam ne moom ñoom ñoo seq tool te ñu yàgg cee rafetlu te ñoom ñëpp di demal ndaw yu ma sëkk ku ci ne ñëw na fi nee na ñu sant di leen gërëm bu ba te ñaan yàlla suñu borom luñ ci am ci aw yu bokk ak ñoom. nee na itam ñu bu baax ci seen taxawaay bu rafet ci seen posté ndax seen wootee ba sax ndax xew-xew bu toll nii am yu solo di dajale lu mat ñeenti millions yu mën ko réew mi ñu koy def kilifa yi war caa jàpp war caa taxaw. waaye nag yéene ju rafet yi ngeen ci àndal ak ca waxte ji sedd na xolam lool ba tax na sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ci yow ministère de a sant gërëm la ak mboolem délégation bi nga ànd lépp nga jottali ko ak cantam ci président de la République di wëlale ci ab taal ñoom maître Abdoulaye Wade nga jottali ko cant sëriñ bi ak ngërëmam te xamal ko ne sëriñ bi nee na xolam sedd na ci lool nee na mi koy ñaanal yàlla sàmm ko defal ko ndimbal ba yéene ñu mën a fekk li mu am ci réew mi am ko ci dëkk bi mu matal yëpp ci law gaar ak ñeen ñoo fa jàpp bi ñëpp di ko xamal ne itam li ko waroon ci bis yi ci màggal bi lépp def na ko ba lépp mën na sëkk ndax ñu leen ko waxee woon def ngeen ko lépp ba amuñ ci dara loo xam ne da ngeen ko wax ne defuwuñu ko def ngeen ci ba def def na ci nag ba defi ci loo xam ne bëgg ji mu bëgg Sëriñ Tuubaa feeñ na ci ak yéen ji moom ci woon tamuñu yàgg ndax kóllëre la boo xam daa yàgg diggante waa Jula la woon ak yow ak suñu mu ak ba mu agsi jom mu sàmm ko di ko rafetal kon ko nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ne min abaral biir ak ñoom ak ma ci jëli si waat sant bu baax li ma la ko waxee nii ndax. bis bi moom da ngaa waxoon ca Cheikh Réma ci engagement yi nga jëloon ci mag yi yooyu nga ci ci loo xam nga am ci ba feeñ ah. yaakaar naa ma ngi tari ak si Touba loolu am na koo xam ne rek mënees koo ñàkk a beral ak cantam muy bett ba di ndax ay li mu ci yoon bi sëriñ boo xam ne nag yor na jaajëf ndax président ko fi yónnee euh, waaye dañ ko fi yónnee lépp mi mu koy rafetal. ñun itam mboolem délégation bi ñu àndal yëpp ndegam euh, sama sëriñ bi Cheikh Mokhtar jaaral ma ci bëri ko yóbbu ku fi ñëw ak mboolem koo xam ne ñëw na fi tey koo xam ne ku jiite parti politique la béy ma ci kenn. jëwal ñu koy limaat waaye sëriñ bi leen sant ñëpp ndax moom ñëpp la jaboote di gërëm itam souvent des yi ndax yaakaar naa tudd nañ leen lool léegi ñoom itam seen taxawaay rafet na lool ci bis bi wane nañ ci ko seet ak taxawaay bu ak dëkk bi ñor bu ngeen ñoom kon ñooñu itam ñu ngi leen di sant bu baax di sëriñ bi nee na fii réew ay xat-xat ak i ci wax lu tuuti ndax nanu maase xam ne dogalu suñu boroma waaye euh, suñu loxo daa ci biir ndax suñu borom moo a ne saa saa su jaam ñu wàcc am ñun dina leen xoon ci ay napp yu muy wàcc zahara fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naas liyudhiqahum ba'da llazii 'amiluu la'allahum yarji'uun li mu ci jublu la mooy bëgg nit ñi dellu si waat yoon kon ñu war a gis ne yërëm moo tax mu doon natt ngir bëgg ñu jël waaye ñu war a xam ne nag dara mënuñu ci génn ñun ñëpp dellu si ci yoon yi tënku bëgg-bëggam ak ci digganam ñi nga xam ne wax na ne suñ jaam ñi tënku commencé rek tënku ci ay digganam ci kaw ak ci suuf wala wala ahlu kër amanu wa taxu la fataxna alayhim barakatin min samaawati wal ard moo xam kilifa nga wala ngay ku ñu ñu ngi fàttali kilifa yi nag ne njiite jiite responsabilité bu rëy la bu diis la koo xam ne yëngu fii rek waaye dem na bu sëni kon ku ko laaj ba ñu jox la ko war nga cee taxaw bu rafet ba bu ëllëgee nga mën cee sa borom ko joxoon ak sa morom jaam di ko mooy jubal ak maandu bañ a toon kenn a sar te sàmm ak yëpp te bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne képp ku jiite aw nit doon fukki nit la bu ëllëgee

yàlla nanga nga yërëm képp ku jiite aw ci sama xëy man euh, man waliya min amri umma um, min amri ummati shay'an farafaqa bi ñoom na ñu ngi sant taalibe yi yëpp leen gërëm di leen xamal ne gis ngeen seen taxawaay bu rafet ak seen posture nee nga itam ñu sant si lépp loo xam ne lu yiteel lu mu liggéey ndax gis naa lu leen si wut lu leer beneen ko def ko def ko kaw bi xam mi ngi ñaanal nga xam ne dañoo juróom ngir fas yéene màggal Tuubaa am ndox ci yoon bi nga xam ne yàlla daa dogal seen bakkan des fa ñu ngi leen ñaan suñu borom leen te xaaral la ajjana ci barke suñu Tuubaa te ci rafet yoo xam baax ndax wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ilallaahi wa rasuulihi summa rek la ci teg ma fàttali rek benn dénkaane bu Serigne Touba waxoon ma jeexale ci waxtaan wi ñu teg ci Serigne dafa waxoon ne. mboolem ndigal yàlla ni ndigal lu ci ne sàllu yërmande la woo xam ne buur bi moo ko yabal di ko jël seen ci jàng mu ne sàll woo jàpp nag defar ko te tu ko bàyyi yàgg yàgg dana dellu sa ngóob la te suy dellu dana lu ñu bari mu ne dajale sàll yëpp nag sàll ci nekk da ca nga def ko ca kenn rek ak suñu borom jël leen muy Muhammadu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te def eh, eh, du ngeen a jàpp ci ndigal yàlla yi na ngeen ci boole yett yi ma leen bëgg wax muy ak tawbatu na suuf sukurullahi ak mu ne ana luy tawbatu na suuf mu ne mooy tuub bu sell mu misaal misaal mu ci bi ca delloo borom biir foofu ca delloo mu ne tuub ma wax rek nag moomal ci lislaam jaam bu jublu di ñaawal ak yàq di dund am téeméer yàq tey jëmale tuub bi wax tuub ga foofu yemale ñu defar ginnaawam ba bis boobu juddoo bakkaat bi si def mooy loolu loolu yi tax moo ko def ko def moom ak fu mu mën a dund mu ñu dund ci sa def nag man daa ma ko jël mu dugg shukur la mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ànd ak cër yi nekk ci li neexul borom mais googee cant mu ne xam ngeen cant boobu mu dem mi ngi mel ne buur boo xam ne daa moomu réew mi xëy wóote nangam ci tere naa ko nangam ci jëlee naa ko man am ko nag ñoo teg sa mbooloo ba jaar ca buur ba fekk sanaa ko ci ay waay ji nag buur bi maa kara sant mu ne bu buur ba baaxee mos ba ko ne cant gi naa ko ak yow bi saa ci daa di wax daa di koy wax dab wala takun minal xaafiliin warta bokk ci sakkan mu ne loolu laa ci xelam ya ci xelam ci xelam ba mu ba mu agsee ci cëram yow mu ne ñokke ngir ñëw ci dem ba mu ne ñokke jiw nag saa borom wax daaw nga fa ay nawaatu rasulillah teg la boo jublu rek jëm yëkkati ak jëm yi nam suñu borom boobu waa ko moom ay nawaatu fi ngeen jublu rek fi ngeen laajee foo ko tax foo ko tax ñu dem sori nag boo borom wax Tuubaa la sant kooku moom saa loolu mu ne loolu di yittuma ci meññal nga yóbbu ko sa loxoom te jot ko mu ne loolu moo jëf ci kat saa borom laaj bi wax la nga loolu mooy yéen a. ba ñu toppal ci kuusu bàmmeel daa seen ñeenteel xëy ci biir bàmmeel mu dugal di ko naan man mi yee te mënu ma doon def saabu saabu sàngam maa ngi nii maa ngi def lépp loo soxla mu ne mooy sa sax jaar rek moo fa xew maw ak fuuy mooy ndax ci bari de day fuuy ak lam yore ndax xamul kañ la coobare boobu moom rek moo sos mu ne amul mbay amul sarax waxtu boo na ak na yabat jënd jëm jënd jënd mu taxaw xaari mu ne xaajoo suuf si doo toj ruu yëpp jënd di diglu digal aji wax ne wax ne bara sangam dañ la soxla lu ma ne te ñëpp rek ndeem jege na ndeem sori na dañ koy soxla woon mu ne am na ñoo xam ne fa ñuy dekkee ak fa ñuy dajee ni ñii seen gaaw yi mel na jaraw ñii mel na fas koy daw ñii mel na nit koy daw mu ne am na fa ñoo am na fa moos ñoo xam ne malaayika yi xale jàpp ci seen tànk bi ñu ko ñu nag mu nekk alhamdu saalih yi ñu daal ci àdduna ci dañu mën a am dañuy dem ci daje mu ne foofu nag borom ñiitul xëy dañ koy soppi ñiitul xëy taamu moo dem ci daje waxtu woo xam ne saabu na ci ba jaar ñëpp daje dana wax ne ana laa daal ñu féet ak baax laa daal ñu fi ne dañuy féet ak baax muy ak lislam mooy nag fu jaaree féet ak baax fu jaaree fi ne dañuy féet ak baax muy yoon yàlla nee ñu daal di soppi lislam ci leen bu samp ko ci diggante laa daal ak fu jé fu jaaree yëkkati ko ñëpp di ko seen saa moom yóbbu yóbbu ko jëm joo xam ne taar ko mu amee ak yére yu sol na mu rafet ak xet na mu xëy na mu neexee na mu mën a tàggaatee mu ngeen mu fekk jëmm ji foofu ñëpp di ko seen mu di ko kañ di ko tàgg di ko kañ di ko tàgg ba jëmu ci naa waaw xanaa lii mooy aljana bi ñu suñu borom doon def jana bu ma ko dee bu ko aljana mu xadama ci jana rek ne aljana ak jana ñaari ñaari soppi kena loolee soppi ceef rek kena lu ñu ñuul samp ko ci diggante labraay ak fujjaan yi nga yëkkati kenn ci fujjaan bi yëkkati ñu yëkkati ko seen mu ne saa borom yóbbu si ñun joo xam ne namu ñaari ak yére ñu sam namu ñaari te teewul xëy na mu naqari mu namu mën a xaste dama mën ngaa ñaate mu fekk yow jëfoo ko ñëpp ñu ko seen mu di ko ngaañ di ko xas di ko ngaañ di ko xas ba jëmu ci naa waaw mu xadamu la wala laa a am mu ne danga amee ci ay xasaar dafa bari lool yóor boo mu amee ci ay xasaar dafa bari lool ñëpp di ko yëg di ko am ci lu ma aju fekk sotti ci kawam kenn ku ne dafa jox loola mën a amee noonu muy fab di joxe di fab di joxe di fab di joxe ba joxoon fay jéem ba ba joxoon fay ba joxoon fay ba ba mu yor ba la mu yor jeex ñaxoon fay jéem malaayika yi dañ doon jën fa suñu ko ne la mu am wàññi xasaar bari na lool ba mu amee ko bàyyi. nañ fab ci seen initiative bi jox ko ñu di ko jox mu di ko jóor foofe ñu di ko jox mu di ko jóor foofe ba jóor ba jar tollaan mu toll sëriñ bi nag wax na da ngeen góorgóorlu ci fàggan bi bu ñu ca teer ñaan loolu nag balaa da ngay defar sax takk jàng ya ñëpp di ko seen yaakaar ne dugub nga fa fekk jaar ko suuf loolu yi waral ko nee na bu ko bu ko defee loolee ci mujj gis ba ca loolu la di xew ci misaal mu ñëw gis la ci ñu si jot suñu borom daal ñu dugg ci àjjana ñëpp wëlbatiku dugg jënd ñu xam siraat gàcc ko eh, ci kaw xam bi sawar te kon dem ci ci jéggiwu ko te ci lenn te ci lennum lenoon ak seewaay ba ñu jox ak ñawaay ak yëngu ko mu wër yem ku fa wër leen jàll ba ko moom rey mu mooy foofee nag borom yeetu xëy dañ ko soppi ni yeetu xëy dalu kanam bu am am xel waxtu borom fa bi ak tàkkam bëgg ñu gis raaf mu xaw ko jàllal ba ak kaw sax mu sangu sax ndax xet yi jënd ba sax waa àjjana seet si mu tëri ci xool bu dee ba ba ñu bunt kam daa nekk daa seen njiitul xëy bu di ko nekk ci bunt kam di ko wax naan man mi nga doon yéene te mënu ma doon jëf saabu mu sangu mu mel nii loolu yi nag anam dox moo ko def ko dëkk moom ak fu mu mën a jóge noonu ñu ngi jóge ci Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def wax bi xadisam bu tedd nag niyyatul mu'min ablahu min amalihi kon nag bala maa jeexal nag maa ngi jégalu li ma waroon a jiite li ñuy wax tax tax te jéem moo tax xel moo ma xoolal jégalu ko Serigne Touba yi fi teew yëpp xalifa Serigne Touba yi si mën a ñëw ñëpp daanaka ñëpp dikkati ko ku si ñëw tam sa rakk ji sa sew teewal na la kon nag Serigne bi daanaka ñu leen sant ñu ndax ñoo ñoom ñoo ko ñi nga xam ne itam euh, rakk Serigne Touba yi ñoom itam ku ci ne euh, ku ci mënta ñëw ci xalifa ba kese si ñëw na ak mboolem Cheikh Serigne Touba yi ak taalibe Serigne maa ngi gërëm itam nag bi xam ne sëriñ bi jox na ndigal ndigal Cheikh Mouhamadou mu ñu boole ko te ñu nga xam ne ci xalaatu sëriñ Mountakha la jógee ñu di ko daxal bokk yëpp na si nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi ñu ngi leen sant ñoom ñëpp ci ku ne ci tool ci santam te xam ne yëf yi ñoo ko bokk daanaka ay mutuelle lañ sant. ak mboolem ñi nga xam ne ñoom laa àndoon ci liggéey muy commission yëpp bàyyi ko ci kenn di gërëm itam mboolem chef de service yi nga xam ne nag ñoo àndoon ak ministère de l'intérieur ci liggéey bi ñoo kii ku ko ba def ko mokkal suñu ko nag ñu di ñëw ñu ko sàmm ko li ma fa seen liggéey suñu lépp àgg ci jàmm ñun ñëpp ñu topp ci ginnaaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Mbacke léegi nag ne ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan ñi ànd ak euh, délégation bi ñu ngi leen di yóbbu ci biir palais bi ambassadeur yi ñu ngi jëm fële ci réception ba Mbacke ñaanal kilifa diine ñu ngi leen di ñaan ñu dellu seen néeg sëñ bi sa ñaan lay meew waaye jàpp ci jur gi maye ki moom jur gee ko sa yaay sëriñ Touba ñaanal ne ñemewul bor dafa mën a fay de Mbakke yàlla nga yàgg ci la Cheikh Modou Lamine Bara yàlla fi yàgg ci la gay dëlu jur xaram amin amin ñu may kilifa yi nag yoor